Fall yoroon donc dugg ci néeg jël ñaari doomam tëj leen ca néeg ba bëgg leen a rendi ñoom kenn par kenn mm-hmm. xamuñu ak lu ko metti mm-hmm. mais bu ñu sukkandikoo ci journal bi mm-hmm. police bi mu ñëwee daf doon waxtaan ak moom di ko jéem a raisonné maanaam di dalal xelam avant muy def acte bi ndekete di euh, rendi xale yi donc surtout ki am ñetti at moom la bëggoon a njëkk a rendi xamuñu nag pourquoi ce soit mais bi ñu demee ba pare daal euh, waa euh, police dañoo mujj dajji porte bi fekk ko ci biir daal di sauver xale bi mu commencé woon di rendi bi ñu ñëwee mm. sax fekk nañ ci moom baat bi mu commencé am ay gaañu gaañu mm. mais ñu daal koy mujjee sauver yóbbu ko hôpital mm. moom ak beneen xale bi te parce que beneen xale bi aussi faaw ñu xool ko euh, mm-hmm. psychologiquement mm-hmm. est-ce que amul lu ko impacté. Mm-hmm. donc lii mooy li xew démb fële ci caaro euh, yi sant yàlla. Mm-hmm. Euh, di wayjur boo xam ne moo bëggoon na ci faat ñaari ay doomam yu jigéen kenn ki mm-hmm. ñetti at kenn ki juróomi at. Euh, mu nekk mbir boo xamante ne nii bi ñu ko gëstoo ba gëstu nee nañu waa ji wérul. dafa waaw dafa am ay problème boobu loolu moom loolu yéeme na de. voilà lu doy waar maam parce que <coughs> yu mel nii nag bu amee il faut que la personne. soit euh, benn nit koo xamante ànd ak xelam pour mën a def yenn nii parce que nag ak doom ni mu neexee diggante papa ak euh, doomu jigéen ni mu mel mhm. donc nga saña rek jël li nga xam ne rek moom mooy euh, paaka ngir fas yéene leen rendi ak jur ni mu méttee waaye tamit jur ni mu neexee ba noppi nga waroon yar yiir loole bu amee rek il faut que la personne mu doon nit koo xamante ne rek euh, xelam nekku fi ngir mën a jëf yenn acte yi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn rafetlu ko mhm. vraiment mbir mi nag comme li nga wax rek bu euh, amee aussi donc yéeme na donc na euh, na na na police aussi Euh, def lu ko war waaye tamit xale yi tamit ñu ñu ñu suivre leen aussi parce que psychologiquement. Mm. Mm. mën na jouer aussi ci ñoom parce que sa kilifa jël li nga xam ne moom mooy paaka bi nga xam ne moom moo la jur fas yéene laa rendi mm. voilà mbir yi aussi lu doy waar beneen bi aussi nañ gën a topp pour mën a xam moom personnellement lan moo ko métti. ba animé ko à que mu bëgg a li nga xam ne rek moom mooy acte yi. donc man moom li ma ciy jàng. voilà d'abord ci mm-hmm. parent bi. Mm-hmm. mooy woy juru bon mhm. euh, li nga wax lu am solo la parce que mhm. après war nañu gëstu ana wayjur mhm. bu jigéen bi parce que léegi euh, xam nga bu fekkee par exemple exemple divorce tey bu amoon mën nga am la possibilité tey say doom yooyu yëpp mën na ci am donc yooyu euh, précédent yooyu lu jara bàyyi xel la pour ñu xool pourquoi lui seul moom dong ci néeg ba ak ay doomam loolu benn question la ñaareel bi mooy ku wérul warul nekk ci biiri nit la loolay dëgg. Hmm. Sénégal nag dañuy dëkk ñu wérul ñi. Hmm. dañuy wérul dañoo am place. Hmm. maanaam bërëb boo xam ne foofu la ñuy saytoo seen wàllu xel. parce que en général. Euh, du ñu ànd ak seen sago bu ñuy def yenn yi. xam nga kuy dem bay bëgg a rendi parce que dañ doon négliger. tout simplement peut-être état de santé am. wala état de mémoire am. donc loolu. muy benn ñi faral di bàyyi xel. nit ñi nga xam ne des fois wéruñu. ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax. baax surveillance totale. ci biir kër yi. ak yeneen yi bi ci mooy xale. xarit baag moo ci yem. Mm-hmm. des koy bàyyi xel. Mm-hmm. maanaam man sama doom. man mm-hmm. toujours fu ma yeewoo damay woo sama soxna. pour xam bàyyil ma ko xel. gis nga xale boo xam ne dem na fooyi sax bu toogee vingt minutes déggoo ko demal nga yërlu. war nga xam ci lu mu xool ci lu mu nekk. dellusiwaat jamono ji moo yàqu. man loolu laa gëm. xale fu mu mënti nekk. dee ko bàyyi xel. parce que yi ñu ngi fi. njëfkat yu bon yi ñu ngi fi. sàccikat yi ñu ngi fi rayaatekat yi ñu ngi fi. yaa ngi ki nga ki nga bokkal deret sax hmm. bul ko wóolu ba mu jeex sa xale man loolu laa gëm hmm. moo tax lii nga xamante nii am na hmm. waruñ ca rek dégg noonu rek bàyyi mu jàll dañ ci mm-hmm. daf ñoo war a yee ñu gën a bàyyiwaat xel suñuy doom xale bu même way jur bu jigéen mm-hmm. bu mu bu mu jox confiance à cent pour cent sax doomam mm-hmm. euh, euh, jëkkër jëkkëram ci côté éducation mu ngi nii parce que lii tey xam nga ne bu fekkoon ne jigéen la ñu ne waaw mais góor bu demee ba koy def te góor lañ daan wax naan surtout doom bu jigéen ci moom di nga xaritam la waaw donc euh, lu yéeme la loo xamante ni daal ku ci nekk war na gën a bàyyiwaat xel doomam ci fi muy fréquenté bu toogee benn waxtu bi dégg ko gisu ko jël ko gis nga fan passé dégg nañ ci mhm. ñaari xale yooyu ñu dugaloon ci oto ba dëgg la tu vois mhm. ci même période bi mhm. loolu ba léegi ci période élection la euh, euh, Ziguinchor xaw Saint-Louis ñuy dégg xale yi ñuy sàcc loolu mooy wane ne xale yi fi mu seen période lañ nekk. te te ba ci cas yi tamit on sait rien ñu topp ko pour xam rek les pour lesquelles mu demee nii. jël paaka mais euh, tey pour wax la dëgg bu élection yi jotaan jafe-jafe yu mel ni dem na sax ba. ñu mën a ñenn ñi ñu jënd leen sax à ce ñu commettre yenn yi. waaw loolu xamuñu dara ak lépp daal surveillance bi daal. voilà nañ a toog ko gën a bàyyi xel bu baax waaw te aussi affaire yi daal maam yéeme na na mhm. sama doom buy jàngi daara sax. Mhm. damay wax bu 11h jotee na yaa ngi dem yërlu. dëgg la bu midi jotee na sama na frère am dem. <laughs> Mhm. xoole ji jëli ko indi ko. parce que foofu lañ toll ci jamono jooju lañ toll. dëgg la.